doom bu yàgg du doom bu bees doom am na doom waaw sénégalais yi moom Sénégal moom ah. ndax seeti ngir jëli passeport am avant que ne xew. loolu moom ci lu leer aw ci lu leer loolu ko loolu yooyu yëpp mën na yooyu yëpp mën na ne daal xam naa ne daal ku fonkoon njabootam la. ndax doomam ba mu ko amee bokk naa ci ñi ko njëkk a yëg ñu rafetlu ko waaw ñu ñu rafetlu woon ko lool mais yàlla moom doom juddu na yaay ja wuy ji doom juddu na baay ja wuy ji àdduna demee noonu waaw man lépp lu may def rek ci sang bi laa koy xoolee muy Seydina Mohamed ci moom laa koy xoolee ñàkk na lu ne boole ko muñ waaw noonu la demee. no bët ak bët nii non non noonu mais gis na ko ci ay vidéo gis na ko ci ay mbir ñun gis nañ ko mais daal yàlla daal lii la bëggoon yàlla lii la bëggoon daal xam nga muy jàmbaar muy jàmbaar ma koy jaalaat ñëpp parce que gars yi sonn nañ ci trop gaa yi ku ci na ku ci na wane nga sa sa cofeel waaw ci moom te loolu la mérité loolu la loolu la mérité te àdduna moo demee noonu man mi di wax yow xaw ma waaw doo dooy tàggoo xaw ma àdduna moo demee noonu Baye Fall dëgg danga nga war a di di boo doxee dund da war a di doxee dee parce que looloo am ci àdduna moo tax nañu rafetal nañu rafetal te bàyyi kàddu yu ñaaw yi Sénégal doy na waar daal nañu nañu rafetal te bàyyi kàddu ñaaw yi te yeneen te jàmm waaw du wax bu bees wax bu ñu wax chaque jour la mais est gëm nañ ko wax bu ñu wax chaque jour la nañ yeneen te jàmm Sénégal jàmm fi xaj mais est que gëm nañ ko parce que Seydina Mohamed nañ yeneen jàmm parce que da ngay toog a nit léegi mu jug ñu ne dem na. Hmm. noonu la noonu la demee jàmbaar la woon daal jàmbaar daal dem na waaw jambaar daal dem na. ci jàmbaar jooju mën nga ñu wax qualité yi nga xamante ni moo la gën a marqué ci ki nga xamante ni moo di Jean ak souvenir yi nga xam ne yaakaaroo mu ci sa bopp jamono ji fi nga nekk ni ndax seen ànd ni mu demee woon. jambaar jambaar rek laa mën a wax ci moom jàmbaar ça veut tout dire quand on dit mooy lépp jàmbaar la woon ci lépp fonk seen waa kër fonk ay mbokkam waaw fonk seen waa kër fonk mbokkam. waaw man moom sama waay la woon te ku baax la mooy mooy mooy tooñante bi kaf bi ree bi xam nga kaf bi ree bi yooyu daal yooyu daal yooyu daal manqué na ma kaf bi ree bi manqué na ma quoi waaw parce que moom man ak moom dër la woon ba ci dëj ba sax après xaw naa soulagé wu tuuti maa ngi ko doon tooñ xam ma rek même man même moo gisul dama koy tooñ waaw man même moo gisul moom du ma bàyyi gars yi ñu ma naan bàyyi jàmbur nekkoon ci dëj ba maanaam naka nga ko doon tooñ laa taxawal rek naa leen saa yi fi mu toll nii ci ceeb bi tey lay lekk ba suur ceeb bi moom dinaa lekk ba suur naan naan ci bière bi nekk ci yàpp mbaam bi indi fi biri ama rek yëngal gars yi naa ma noo mais leen tey lépp laay def sama waaye dem parce que c'était quelqu'un boo xam ne xam naa ne ma fi ma fi jóge tamit taxawaay boobu lay am ci man dina taxaw taxawaay bu rafet te bu ma demee dina ma tooñ quoi parce que daf ma daf ma dafa ah waaw mu meloon nag man la meloon nag ñëpp ku ci wéetal nga ne kii la gën a xaritool gis nañu ci gi nga xamante ni moo di Jean mi nga xam ne tey moom moo fi bàyyeekoo nekk xaritu ñëpp ci sénégalais yi nga xam ne sax jotuñu ko xam à travers li nga xamante ni vidéo yi nga xam ne réew mi gis nañu ko saa boo ko gisee ay bëñam ngay njëkk a gis social bi nga xamante ni mu ngi ko doon def aussi mais gannaaw ba mu demee léegi polémique bi bari euh, ci côté euh, chrétien ak jullit ñi naan jullit du ñaanal chrétien ak yooyu bu ngeen déggee loolu yéen ñi nga xamante ni ay xarit ngeen sës si ki nga ni moo di Jean lan lay def ci yéen ak tey message bi ngay lancé jëmale ko ci ñi nga xam ne ñoo yëkkati kàddu yooyu tey yoon lay doon. ñi ñi kàddu yooyu man ci baatu Jean Paul waxee ndax sañ naa ko baal nañ leen waaw àdduna noonu la demee xam nga on a dépassé on a dépassé le stade de de de de de de de des nuances. di tooñ di indi ay bruit wala ku la songu nga dal ci ko am non dépassé na niveau boobu niveau bi ñu toll léegi mooy ku la tooñ jéggal ko te nga avancé nit nit day focus ci sa life da ngay focus ci benn affaire. bul nangu ku la déranger parce que Sénégal dal doo dem duma dem bi dafa xaw a bari boo focusé ci ne danga nga tabax kër gi boo commencé tabax saa boo xëyee tegal sa chaise woo say maçon ngénte baag dëj baag xew baag yooyu yëpp soo new ci yow yow yow fixel ci sa objectif waaw noonu la demee mais ñoom jégal nañ leen man de damay xëy chaque jour di ñaan saa bu ma téye sama kurus dinaa ko ñaanal fu ma jullee dinaa ko ñaanal loolu man la concerné concerné wu leen ñoom problème wala xeexoo ci biir askan bi ndax diggante jullit ak chrétien ci àdduna jullit yi ko la ëpp jullit yi ko ñaanalul man loolu leer na ma te àdduna yàllaa ko moom te ñun la fi teg yëfu nit rek la def ku ne yaa moom sa xol waaw nit dafa am noo xam ne noonu lay doxee mooy day dox ak xel mu sell di dox ak xol mu set lu waaye am yéene ko ko boo boo bëggee am lu ko raw da ko koy yéene. sinon laneen loo def xeexaloog moom yàlla ngay xeexal nit alalu yàlla la te Jean Paul keroog ñun ñëpp ba ñu teewee xam nañ ne kii sunu waay la waaw ndax jox nañu cër cër bi muy jox moo tax keroog fu ñu taxaw gars yi delloo ñu cër boobu nit dem na ci dëju nit te du am cër ba mais ñun dafa am cër bu muy jox moo tax ñu am cër boobu. d'accord yi nga xam ne mën nga ñu ko jox ci Jean nga jox ñu ko rek le temps muy nit ku baax muy nit ku baax muy nit ku baax muy nit ku humble ma koy ñaanal fa mu tëdd yàlla defal ko fa jàmm ba mu gënal ko fi mu jóge sàmbal ko su njabootam ak ay waajuram ndax yaayam sunu yaay la te dina xam ne sunu yaay la waaw Jean dem na mais bàyyi na fi ay bàyyi fi yeneen i Jean benn Jean dem na mais quinze Jean Paul a ngi fi muy nit ku baax yaayam di ku baax waaw yaayam ku baax la parce que bu ma nee yaayam ku baax la. parce que Jean Paul daan nañu wax appel vidéo du tooñante mu may wan yaay ji ma ciy wax kàddu yoo xam ne te yaay ma ngi toog te dafa doon gérer yaayam day ree moom bu ko defee des fois sax bu ko yaayam déggul mu ne ko dégg li mu wax kon yaayam ku baax la mu bokk fu baax yal na ko yàlla defal defal jàmm yaayam te xaren ñu sunu waaj ji bañ fay bañ fay bañ bañ fay daje di xawaare ci yeneen i bagages. daal fi mu nekk nii comme ci côté yaayam moom war naa am xel mu dal ka ne euh, Jean Paul dem na mais bàyyi na fi yeneen i Jean Paul yoo xam ne dinañu réaliser li nga xamante ni moo nekkoon rêve am ci moom. si si si si incha allah incha allah yàlla ñu yàlla yàlla ñu fi yàlla bàyyi may ñu fekkeek tal Jean Paul sunu yaay comme sunu yaay ñun ni ñu nekkoon ay yaay Jean Paul ñun sunu yaay ay yaay Jean Paul la ñu kon Jean Paul yaayam sunu yaay la sa yaay nag da koy jox cër bi mu moom waaw loolu la rek. lay jaajëfal bu baax a baax kàddu gu mujj gi tey lan lay doon. mooy di nuyuwaat waa Medina yëpp di jaal sunu grand pa Omar yaayam di jaal waa Medina yëpp képp ku ku làqu Medina ñu ngi lay jaale di nuyu Bamba Fall sunu maire parce que moom mooy premier magistrat bi fii di nuyu autorités yi nekk Medina yëpp di nuyu sunu rakk yi mbër yi fi ne mbay guy gi yàlla ko yàlla may ndam Bour Sine yàlla ko yàlla may ndam euh, Bébé yàlla na ko yàlla may ndam. ah Ibu Afia Diène Kayre ah, Kayre ak Diène ak rakam maanaam mbër yépp amet Lac Rose ah, di nuyu maam Góor Samb sama rak ku baax yàlla na ko defal jàmm di nuyu ba Gàkku sama sama sama frère sama seex di nuyu laat Baye Laat Baye Laat Baye maa ngi koy nuyu bu baax doomu ndey Buur Siin maa ngi koy nuyu bu baax di di samay mbokk di ko tëjee ci sama yaay yàlla na ko yàlla may gudd fan ak wér defal sama soxna jàmm ak sama njaboot ak samay goro incha allah loolu daal laa xam ne daal moo doon kàddu yi ma ci sànni di ñaan yàlla daal yàlla yàlla def ci réew mi jàmm dañu rafetal kàddu yi di nuyu waa université yëpp fa may liggéeyee waaw di leen wax ne leen incha allah léegi mu ubbi léegi jàng bi commencé waat te xale yi ñu concentré wu ci li ñuy def te xam ne foofu ñoom ñoo ko moom du ñun ñëpp mën nañ dem mais ñoom dañ fay des. te kilifa gi liggéeyoon na liggéeyoon na université bi ba mu rafet daj ci coono yu bari muy euh, Amadou Ali recteur daj na ci coono yu metti tey bu li amee dafa dafa dafa metti mais muy jàmbaar nekkaat ci yoon bi ñuy defaraat sécurité bi tamit di veo nekk ci sité bi di xool bu baax sunu coordonnateur laay ci moom laay teg nuyoo bi muy euh, Lo monsieur Lo moom mooy sunu coordonnateur sécurité bi di nuyu ñëpp di nuyu sunu DFC di ko nuyu di nuyu mbokkam yi di nuyu njabootam ndax DFC bu baax bu baax la ñu am DFC bu baax nit ku ëmbul di nuyu ñëpp per Diatara université bi daal bàyyiwuma kenn di nuyu Elimane Ba sunu euh, euh, secretaire général waaw di nuyu Medina maa ngi ziar ñëpp daal waaw metti na loolu waaye ñi ngi muñ. d' accord jërëjëf maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax suñu frère suñu xarit waaye tamit nekk xarit ci ki nga xamante ne ni moo di Jean Paul gaa sax bi mayu ko ko liggéey beeg yooyu mais euh, tamit comme euh, yàlla dafa dëgëral seen ànd ba yàlla jël ki nga xamante ne ni moom moo fi jóge tey euh, taqali ànd boobu te yàlla def sama diggante ak moom aussi mu nekk sama frère nekk sama xarit loolu moo tax mu accordé ni li nga xam ne moo di interview bi ñu ko siy jaajëfal bu baax a baax seeni seeni seen léegi moom lañ jox groupe bi seeni seen doomu mère mook moo mère Dial léegi ñoom lañ denk groupe mère Dial. seeni mi doon wax que ne du sangu tey xaw ma. non seeni seeni moo nekkoon ci Mayacine ak Dial ah, seeni waaw seeni bu Sonko waaw ñu ngi koy léegi moom lañ denk groupe bi ndax mooy magu groupe bi moom ngor ba moo ngor ba ñoom ñooy samay mag di samay tonton ñoom lañ jox groupe bi man maa ngi seen ginnaaw dañ ma ko doon sëf mais mais mujj ma ko jël waaw dama leen ko jox waaw non non parce que ñoom ñooy mag ñi waaw ay 45 ak ay 47 ans ak ku am ay. 30 ans yooyu xam nga bokkul loolu bokkul bokkul. ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal mbokk internet yi nga xamante ne nii ñooy safoo di seetaan site bi di wasaare société di jaajëfal xaalis sama doom sama caméraman jox leen rendez-vous ba beneen yoon incha ak yeneen actualité ak système benn taalibe sëñ Abdou Karim Mbacke bu mag bi jaajëf.